di leen nuyoo ci béréb bu màgg bu tedd bii di jumaa ji ni ko Cheikh Abdoul Ahad Bousso waxee nu ñëw fii ci ànd ak yéen ci waa daaira Muxaddamatul Xidma mi nga xam ne ñoo yore wàllu jumaa ji ak lu jëm ci saytu gi ak taxawoo gi di jël nuyoo bu sell nag bu bu tedd di ko teg ci loxo Cheikh Abdoul Ahad ñu feggool bu ko defee bu ñu ko tuddee rek euh, dana nu mën a jàllaleel nuyoo ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ak mbooleem membre yi nga xam ne ñoo bokk ci daa daayira bi di muxaddamatul ma di ñaan yàlla sunu borom mu dool leen a kattanal te dëgëral leen te jéego boo leen ci jéegi mu dajale leen ci ak ngërëmul ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul alhamdulilah noo ngi sant yàlla bu baax ci jataay bii nga xam ne euh, jataay yu ngëneel la jataay yu tawfiq la ndax dafay mel ni nit bu dee nekk ci quartier wala nit bu fekkee ne dafay nekk ci ab yëngu waxtu wu nekk rek la nga ciy jublu mooy wone luy tax doomaadama bi mën a jariñu wala luy tax nit ki mën a mucc wala luy tax doomaadama bi li muy sàkku mu man ko am moo waral jataay bi tey ci béréb bu sell bi nu nekk di dëgmalit bis bu màgg boo xam ne dafay mel ni lu ëpp ci taalibe yi dana nu bàyyi ca seeni béréb ñëw jëm si ci béréb bu sell bi di jumaa ji ñëw ci dëkk bi di tuuba ngir ñëw def seeni ziyaara ñëw ngir màggal si loolu nag ak laaye biire la goo xam ne nun ñëpp na ko bokk ndax Sëriñ Tuubaa moom day njariñ loo xam ne dara ci ay lor nekku ci ba noppi it ñaan boroomam nit ñi jariñ ci moom kon loolu doyoon doyoon na ne kon defe naa nit mën naa ñàkk xam mbaa mu waaye lu koy lor moom mën naa bañ a bàyyi ko sëriñ bi ndax sëriñ bi moom amul benn lor waaye nag nit ki bu jaawalee li muy li muy defe naa ba ci àdduna bi sax ni ko ni ñu ko organiser ku jaawale ab code defe naa des na la na juum nga ca la nga la nga def doon ko ne la fa nekk moom ma nga fa te ku ko awale ci yoon wa jot ca yow mi jaawale yow la ñuy won ne jaawale nga rek nga seetaat yoon woo cay jaar loolu mooy sëriñ bi ndax koo xam ne euh, nafaani wa bi yan faalu wara kon kon moom engagement la sax ndax bu ne yàlla jariñ na ma ba noppi na ci man la nit ñi jariñoo kon bëgg na ko jariñ ci moom waaye wan jariñal nit ñi ci man kon sëriñ bi moom euh, njariñ rek la la ko kenn ca euh, bindkat yooyu nekkoon ca gànnaar doon wax ne cheikhun tajarrada lil ulya fa day danuhu naful wala fii bawaadihi wa amsaari sëñ Tuubaa moom buñ doon laaj luy ji luy jikkoom loolu meloom nee na mooy jëriñ bi ne fi kon nag jëriñ nit ñi rek moo taxoon sëriñ bi jóg ba noppi di yërmande yàlla yërmande suñ boroom ci kaw suuf kon kiy jëriñee te yërëm mande ku ñëw fi moom ñaar yëpp war nga ko am war nga am yërëm yërëmande suñu borom ju bàyyikoo ci moom ñëw ci yow waaye war nga am njariñit loo jariñoo te loolu lu ci nekk dañ koo firndeel ci kanamam lii ma la wax nii léegi am na keneen koo xam ne daf koy daf koy daf koy tagg bis ci njaareem ba yàgg mu ne ko li ma lam takkun nabiya waaye yow ak nii nga mel nii nga baaxee lu tax doonoo ab yonent nag sax jibril di ñëw ci yow di la indil wax yu sëñ bi ne ko ëpp nga waaye sëñ bi moo wax ne bañ demee ba waxtu fajar yonent bi salaahu salaam bi ñu julli suba ba moo ne ko neel naar bi na eggale li mu doon wax mu wéyal wax ja ba egg ci ne ko alam takun rahmatan lil xalqi arsalaha rabbul anaami fa amma bayna aqtaari moo ne ne kon yow ndax yàlla bi mu lay wàccee nekkoo yërmande joo xam ne laj na ñëpp kon sëñ Tuubaa eh, yërmande suñ suñ suñ boroom la joo xam daf ko wàcc ci kaw suuf li ci jëkk dafa woote bisub ñu di ko santale boroomam subhaanahu wa taala day mel ni lu yomb la nag ndax ba liggéey ba jotee moom moo moo génnoon dem liggéey jànkonte ko ci coono alhamdulilah it béréb bii nu koy maggale muy Touba fi la signé woon contrant bi digganteem ak boromam fi la génne woon it dem liggéeyi ba muy ñaan lam nekk nekk ci liggéey bi it la muy nekk nekk ci tumurank gi da doon ñaan boromam mu yombal ak dellu ci dëkk bi di Touba waaye def Touba it muy mujjug dëkkuwaayam yassir jumaay di Touba wax mi nii waqi nii adal wara wal tuddim lii tam ma iskaana kon loolu ñaan gu yàlla nangu la ci moom ba tax tey ak ñibbisiam ci dëkk bi am fii mu nekk tey ji jumaa ji it mu ñaanoon borom mu nekk mu mujjub dëkkuwaayam kon loolu ñaan gu yàlla nangu la ci sëriñ bi Touba di béréb boo xam ne nag euh, ñëw fi ziyaara rek delluwaat dana dindi dana dindi dana tàggale nit ak mboolem nëx-nëxi àdduna ak alaxira loola it am na ku ko bindoon ku ñuy wax Serigne Cheikh Thioro doomi sëñ Mor Anta Sali la moo waxoon ne huwa allazi man ataa yawman li maskanihi xayral masakini tuuba min dadin xaraja kon day mel ni eh, wax loolu sëñ Mourou Lamine Diop da sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi da ko tekki dafa waxoon ne li ma gis sëñ Touba wax ko ci Touba li ma dégg sëñ Touba wax ko ci Touba li ma déggut ak li ma gis sëñ Touba bind ko ci Touba ak li ma gisut xanaa sàgganteeg doomu aadama ne ku fa ñëw benn yoon mën nga bañ a dellu siwaat te du dee sa aajo faju kon day mel ni loolu pas-pas dugg na ci positif dugg na ci yitte jure yi dugg na fi kon day mel ni ku fi ñëw te la ngay wut jotoo ca gis nga baat ba mu jiital ah, sàgganteeg doomu adama waaye kon li ngay wut mën nga ko am ndax li ngay wut am na fi kon des na ci yow muy béréb boo xam ne nag euh, sëñ bi dafa bëggoon ko ko waggar ndax moom da ko fonkoon ba mu fi sancee dëkk fi muy Touba da ko bëggoon di ci ñaan boromam sañ fonkloo ko woon mag ñi it bëggoon nu fonk ko ba mel na ni ku mas a am yitte ci moom boo tuddee dëkk bi dana la won ne tudd nga lu sedd sama xol rawatina bu ñëwee ne màggal gi ñëw na nag ñu bari bàyyi ko ci béréb yu bari ñëw na la siyaare si jumaa ji war ma ji ngi tàmbale ci dëkk bi euh, duñ nag rek ba ci jumaa ji waaye booy dugg si ci dëkk bi yëgal ne yaa ngi dugg ci xorom boo xam ne bu ñu warmaal la te kat alxuraan nee na woon ku warmaal euh, warmay suñ borom yi loolu moo gën ndax dana am lum la lum la jariñ te même aada bi yii ñuy ñuy jàngale teggi ni bi ko suñ Tuubaa di tekki wax ne dana tënk ci juróom bokk na ci lu mu wax ne euh, xef su xorma maanaam wattu wattu orma ak yit yitte ju kawe ak sant yàlla sañ Tuubaa nee na ci ay teggin la bokk te kon wattu béréb bu suñ boroom màggal ndax yàlla day màggal béréb màggal jëm màggal jëmm béréb yi màggal defe naa lu toll ni ab yonent nga similoo ko ay dàll ci béréb màggal béréb boobaa ko waral kon suuf des na ko béréb des na ko màggal ngir la fa nekk wala ka fa nekk des na màggal jëmbit ngir la ne ca moom lay la ci suñu borom def kon képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci béréb bii di Touba ne yaa ngi màggal si ñëw di siyaare la nga war a jëkk a mooy yow boo ñëwee war ngaa sentir yëg ne tey jii de maa ngi ci bis bopp waxtu wii may wër jumaa ji wala waxtu wii may dugg ci dëkk bi bis la woon boo xam ne mbooloo jiitaloon na Serigne Touba seen yitte jëpp mooy faagaagal ko seen yitte jëpp mooy tàggale ko njabootam dëkk bii nga ñëwaat tey mu fees dell mbooloo bàyyi ko fu ne na nga xam ne taxawoon na wax ne sama kër yëpp a gent sama njaboot gépp laa tàggool li ma ko yóbbee nag sama sang bii di rasulullahi rek lu ma ko tagg ba jëmee ko ko rek mu gàtt te bala maa bàyyi rek solal ko lu sa mbërtalu loola war nga ca am yow yëg-yëg bu tal noonu ba ca toppit nga yëg ne euh, maa ngi ci béréb boo xam ne mooy béréb bi mu gënoon a bëgg te am na lu may wut si ci moom nga lu teew lu dafay dimbale nit ànd ak yéene nit du defandoo rek ci lu jóg nga àndandoo ndax du la jariñ dara da ngay fexe ba ànd ak yéene ju sel pas-pas bu leer xanaa lu gàtt-gàtt am na xasida goo man xanaa lu gàtt-gàtt boo ko mënutit tudd turu yàlla war nga ko man istixfaar man nga ko salaatu ala bi man nga ko kenn du dem cib teen yóbbaale woo goj wala yóbbaale woo baag ba noppi li yaakaarum ndox nit day ànd ak yéene ju sel ànd ak teewlu gu mag sëriñ bi moom siyaar gi daa mënta ñàkk waaye bu dee boo agsi wut fi moom doo am li ngay wut kon defe naa dana dana xaw a gàtt lool waaye des na ci pas-pas bi nga koy amee ak yitte ji kon boo ñëwee nga yëg ne yaa ngi ci béréb bu tedd koo xam ne moom day ab sangam bay Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxul dendandoog moom waxul taxaw di ko wër waxul ne fa wetu bërëb ba di yuuxu waaye dafa wax ne sama lex bii dama koy laltaay ca ron ndëgg dalli rasulullahi ya xaddi jaxaltuhu turaba naalihi yaa layta nii laxidani bi fadlihi xolo jooju war ma waxul taxawandoo de kon ndax yow war ngaa cëppeelu ndax yow war ngay wadd di dal ndax yow war nga yuuxu xoola kii la wax ceeb sangam moom wax ne sama sang bii de bu ma ko séenoon muy dox bu ne jëyi tànk ba bëgg koo teg ci dégg wala mu bëgg koo teg ci jiit di ko fett wala jaan sëriñ bi nee na du dandale dégg sama lex bay laay daw dëpp ko ca kaw dégg rasul lay joge ca beneen lex ba jàll xoola joojo waruma nga xam ne xaddil wiqaayatu rijlil mujtawa min shawkati ma yudaha aqraba kon loolu wone na warama jum ko jox kon yow it nga am waramay maa ngi ñëw ci béréb bii te mooy boo xam ne euh, kenn ci mag ñi dafa waxoon ne muy euh, sëriñ Mansour Diaw dafa waxoon ne saakal xadimu la si man zaarahu li huda yahwi saadata wal bu min allahi képp ku ñëw siyaare si Sëriñ Tuba ànd ku jub mooy teggin mooy worma mooy dal nee na booy ñibbi ak texe ak mbégte mu sax dàkk nga yóbbaale kon am na lis fi ngoore loo xam ne la cay tax a jot mooy worma ak teggin kon da ngay teewlu sëñ bi yëg ko ci sa biir xol yëg ko ci worma fexe ba xam ne béréb bi lu bérébu yuuxu genn kilifa daana wax ne Touba xanaa ku fi dëkk boo mënta ñàkk soli dalit mënoo ñàkk yor mbaxana it xanaa tiim sëñ bi du ca war ngir ngir ngir war ma joxante ko la boobu dafa ñëw ci barab yi ñuy denc ñii toog ci miir yi fenn fu ne waaye moom mu toog ci suuf ba yàgg mu ne suuf su sëñ bi nekk ñi ëppoon ci ñu ko topp ne ci ku mënta dugg ci suuf it war a mën am war may toog ca kaw loolu it mooy béréb bii tey bu fekkoon ne jenn doomi sëñ Tuubaa rek a fi nekk wala kenn ca ñu toppoon sëñ Tuubaa rek a fi nekk jar na warmaal ko rawatina dëkk boo xam ne sëriñ bi dafa nekk kon defe naa ku am benn yëg-yëg rek du béréb bu ñuy yuuxoo waaye béréb la boo xam ne man ngaa sant sëñ bi man ngaa tudd sëñ bi waaye mu nekk ak worma béréb la boo xam ne dañ fay ziyaara ziyaara nag ak barkeelu ñu bari dañ koy umpule xam nga barke Sëriñ Tuubaa dana barke ab néeg la waaye teggi nay buntu ba fi ne mënee jot ci barke te jaare woo ci ay teggin loolu Sëriñ Tuubaa ko mu ne ku bëgg a jot li ci néeg bi jaareel ci bunt bi te bunt bi moo di ay teggin kon nga am wormay teggin siyaare sëñ bi barkeelu it xam nga jumaa dañ ciy barkeelu ab sëriñ dañ ciy barkeelu alxuraan dañ ciy barkeelu sëñ Tuubaa nag dafa ñu ko jàngaloon dane alxuraan danañ ciy barkeeloo mooy jàng ko ak jëfee lam digle ak bàyyi tere jumaa yi dañ cay barkeeloo mooy julli fa boo ñëwee waxtu woo xam ne waxtu naafile la nga naafile bu lu du waxtu naafile bu waxtu jaamu yàlla jotee nga joxe say farata loolu des na ko barkeeloo ci jumaa mu ne ab sëriñ yi nag barkeeloo ko du raay ko waaye ab sëriñ barkeeloo ko mooy jëfee lam digle bàyyi lam tere fi ne loo mën a def ci jumaa ji boo doon xamp karaw yi di sangoo te jëfe woon ndigal it doo am li ngay wut ndax lu tax laa tafalu shay'an bi ghayril idn fal idn shartun fi xabuli gis nga lu yàlla teg na des ciy jot da koy teg condition condition bi li teeli bi wut moom ngir mu jot ci sëñ Tuubaa ne mooy ndigal kon boo jaaru ci ndigal la sañ bay jaxate waxoon ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fob njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëggatee ci sëb sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ko koy joxe njariñ mu dala jox ay njariñam kon teggin mooy li ci jiitu jumaa ji béréb la boo xam ne lépp war ma la ndax njabootu sëriñ baa ngi fi kenn ku ne am na fooy ziar am na nooy ziare am na yitte jooy am waaye boo duggee nga yëg ne yow yaa ngi ci béréb bu màgg béréb bu bu sell béréb boo xam ne dañ ko war a warmaal waaye mbokk mi boo mënta ñàkk am sax foto boo xam ne souvenir la wut ko ngir boo delloo nga ne man ne damaa amoon photo bii ngir sëñ waaye nag du lu ñuy yor di ko wëndeeloo ci mbedd ba fàtte na ci barab bi nga nekk di yooxaloo naan da ngay seeneb wex wet gu ne déedéet war ma bérébu Serigne Touba du bérébu caaxaan kenn du fi fowee kenn du fi caaxaane du béréb bu ñuy tàppantee pasoo ko waxtaane béréb bu tudd yàlla la béréb bu jàng xasiida la béréb bu worma la booy siyaarit mbokk mi béréb bi nee naa la sëriñ bi bu nekkee ba nga agsi ci moom door a am li ngay wut kon loo doon wut boo ñëwee gis na la boo nuyoo ñaan sa ñaan yëg na la sëñ bi boo waroon jumaa ji tàmbalee ci buntu bii rek sa wetuk nday joor sa wetuk càmmoñ féetee ak moom te loolu genn kilifa moom ma ko ma sax ma ñëw fii di siyaare mu ne ma gànn boo ñëwatee mu xat wëral rek mu ne ma nitu yàlla ku ne bu ko soxol jëmee lu ne ci moom xam na ko boo doon wër jumaa ji rek wër delluwaat nee na bi ko soxol jëmee ci moom rek lu ci ne ci taq-taq lu ci ne ci gàkk-gàkk lépp yëg na ko te xam na ko kon loolu rawatina boo agsee ba ca biir nga yëg ne ñeneen a ngi ñëw nga nga màggal ko rawatina it ki nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi muy Touba ndax koo xam ne jumaa ji mi ngi fi waxtu waxtu ne day mel ni am nañu jàpp nañu màggal gi mooy bisub nangu ñaan màggal gi nga bàyyi say gen bàyyi ñëpp di xat-xatloo ci jumaa ji it defe naa loolu it bokkul ci li nga xam ne ak nite la bu fekkee ne nag am na gan goog war nga koo gunge andi ko ndax ñàkk xamam nga andi ko won ko loolu yàlla la waaye bu ko mënee nag jërul ñëw di xat-xat loonte ndax yow jumaa jaa ngi fi te kii di ñëw mën naa am bala fee ñëwaat dana yàgg dafa ñëw ngir ziyaara si nga war mal loon loola it bokk na ci teggin yi nga xam ne war na ci jumaa ji euh, ginnaaw jamono bii nu toll dafa am lu xew Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla doon lay yàggal te wéral ko muy kilifa gu mat kilifa goo xam ne dafa wone dëgg te dëgg day feeñ sëñ Tuubaa dafa waxoon ne alxaq xaqun wala yanqalibu albaatil wal baatilu baatilun wala yanqalibu alxaq afa man kaana ala alxaq wa kaana waxda la yatihu aljamia wa man kaana ala albaatili wa kaana maahu aljamaa la yatrukuunahu wa yabqa waxda imma aajilan aw aajila sëñ bi nee ki ne ci dëgg moom dëgg moom du soppi kuy neen waaye lu bu la ñëpp toppee te nekkoo ci dëgg it nee na ñëpp xëy bàyyi la waaye boo nekkee ci dëgg ku la woon ginnaaw dana xëy ñëw te te lu lu war sëñ bi doxee na ko waxee na ko charte bu ñu tëral it sëñ Tuubaa daf noo digaloon ne ñooñ àdduna ñi na ngeen di mudaarante ak ñoom ak li ñu tuddee mudaaraat ak mulaataf muy négocier ak moral na nga koy defante ñoom ba kañ yóbbu yóbbuwun leen ci lu yàq seen diine kon day mel ne charte la ci booy dugg war ma ji jumaa ji am nañu fi nekk am na ñoo xam ne bàyyi nañ seen i kër bàyyi seeni gan ngir saytule la yow sa li nga am muy jumaa jeeg béréb bi kon charte yan fi tëral nañ ko def boo ñëwee ñu ne laalal lii laalal ndigal la boo ñëwee ñu ne takkal lii takkal ndax ndigal la ndax sëñ bi da cee joxe ndigal te defe naa kuy déglu déglu nga déclaration bi Serigne ba Bassirou Mbacké wax ba muy wax ne sant na murid bu nekk ku ko man sax nga wut li ñuy takk nga wut ko andi ko ca kër sëñ ba baa nga wut foo foo ko joxe kon yow sart la ci yow ci boo koy jëf nga ne maa ngi jëfe ndigalu sëriñ bi ndax kat murit fooram mooy ndigal ki la koy digal da ngay xam ne daa nga fi ñëw ay at te kenn santu ko daa nga fi ñëw ay at kenn waxula ko tey jamono laaj loola te jamono bu soppi ko dañuy dox ànd ak moom ca nam nam nam soppi ko yàqul pas-pasu murit bi yàqul gëmam gi sëriñ bi yàqul lam jàpp ci sëriñ Tuubaa waaye ndigal la loo xam ne rek sëñ bi da koo santaane nañ ko def kon fenn fu nekk fan la ca jaarloo bu nee nañ moytu raj rajloo bi nañ ko moytandiku image bi war a génn lañ see war a wax mooy ndax nit ki buy jëf na jëf ngir ndigal waaye na bàyyi waale xel nag ka doon ab yàqkat te bunt wut bunt bu sew bu muy jaar xanaa nag damay jàpp ne benn murit bu ne dana ruusa def luy tax sa kilifa am jam-jam wala sa kilifa am kersa jaare ci yow kenn ku ne daal la mu war a tekki loxo mooy man de maa ngi màggali am yéeney dem waaye lépp luy tax sëñ bi lu am lu mu lu bëgg yàlla bu ma ko def yàlla bu ma ko wax maanaam bu kenn ku nekk yanulee sëñ bi lool rek li sëñ bi bëgg naa am waaye boo bëggee doxee neneen yaa ngi yàq ndax bu ëllëgee bu ñu waxee lu ñu warul wax xuloo xeex du ko faj da ngay fexe ba defar sa jëmm yow ba kenn lu jaare fi yow yëpp sëriñ bi kenn lu jaare fi yow it am bunt kon mboolem sart buñ la digal def ko te sàmmante koog moom di sant di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñoom ci ci ci ci nin ko doxale ci worma ji waaye doxee ko ci yitte ji doxee ko ci laaye biire bokk yi waxtu wu nekk guddeeg bëccëg ndax ñi fiy ñëw ñëpp bokkuñu damay wax ne jumaa ji moom béréb la boo xam ne ku am dal am tolérance am teggin moo fi mën a nekk ndax am na am gànna mesere moo xam ne buy ñëw xaal bi muy indaale ak yëg-yëg bi muy indaale kooku ku dul dalal ko wan ko yoon wu mën a jaar ku ku dalut mënu ko ndax ñëwewut sagoom loolu nag courant yi tolloowun pas-pas yi tolloowun yëg-yëg yi tolloowun waaye nag lu mu tolloo di ko tolloo di ko ña nga fa fekk ñu di la won mooy tey yow mii bu ne woon dara ñëwoon na ngir bëgg a yàq béréb bi dañuy laaj bakkan murit bu newoon tey jii dañoo bëgg a màbb jumaa ji waaye sa bakkan la ñuy laaj ngir jumaa ji du màbb nga joxe sa bakkan koo xam ne nag bu nee la joxeel sa bakkan ngir li sëñ bi bëgg am jaral na la sa bakkan xanaa kon defal nii nga def ko delluwaat dana yomb ci yow kon nag maa ngi sant bokk yëpp maa ngi jégalu bokk yëpp ngeen baal na wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. fa tabarakallahu jërëjëf sëriñ Ganna eh, waxtaan wi am na solo lool te képp koo xam ne ba nga dégg loo mën a jariñoo muy ab yóbbal ci booy ñëw eh, doy na sëkk ab yóbbal message la boo xam ne jàll na lool macha allah ak laabire la nag koo xam ne dafay aju ci njàngalem sëriñ bi ci bëgg gi mu bëgg ku warmaal barab bi ak nim daale ne nañ ko warmaale tënk ko ci ñaari bayit li sëñ Gana wax lépp mën naa tënk ci ñaari bayit yooyu muy wa jannatan li dhalikin muridi wa junnatan han haatikin maridi wa man faxan li kulli haadin muslimi wa madd faxan an kulli haadin mujrimi àjjana lay doon ak njariñ ci ku indi aw yiw waaye aw yet lay doon aku pakk ci koo xam ne indi ab safaan màggal nag bu ñëwee léeg kenn ku nekk am na nooy indaale kon képp koo xam ne yaa ngi ñëw raxasal sa ndab te xam ne yaa ngi ñëw ci barab bi ngay duye kon seetalal ndab li te nga indi xol bu sell boo xam ne dana mën a taatan eh, ngir nga ngir nga jariñu eh, loolu daal li nga xam ne mooy li sëriñ Gana wax te tànqe ko ci njàngaleem sëriñ bi laa bi rek la goo xam ne tamit nag jëm na ci mbokki taalibe yëpp kon yàlla nañ ko bokk jariñoo ñu ngi lay sant bu baax a baax nag di gërëm ndax xat-xat yi bëri na waaye yittewoo ko xam ne yittewoo nga liggéey bi saa su nekk muy liggéey daayira Muxaddamatul ma du ñëw bi rek waaye fu ñu toll ñu ngi jokkoo ngay eh, safoo liggéey bi di ko bàyyi xel ci waxtu wu nekk loolu nag gis nañ ko yëg nañ ko bu baax kon ñu ngi lay sant ci turu mboolem membre yi ci njiitul sëriñ Afia Bousso sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy secrétaire général bi mu sëriñ Abdoul Moutalib ak sëriñ Abdoul Ahad maam Asta ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi ak commission culturelle bi ak commission communication ak mboolem membre yi nga xam ne rek ñoo fi liggéeyee ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir li nga xam ne moom la ñuy séentu muy màggal gi nga xam ne incha allah léegi tey weeru safar teru su ñëwee daal lépp loo xam ne mooy xat yu am ci Sénégal wala ci àddina